proposer des millions et un terrain devant un huissier. Pas plus tard qu'aujourd'hui à 14h, Abdou 3 millions de terrain, signal, légui ñu jox Mais mo ñu ñor. Bu fi dem ñu di jënd ak ay ñaar ak ñeen Ak naan ay defal fi terrain. Gis ay ñu fa jeu de monsieur le maire fa Banu 2017 la. at mu jot Tivaouane man la Mohamed Ndaw euh, di leen yëgal ni à partir d'aujourd'hui euh, démissionné naa ci ànd defar Tivaouane ñëw aux côtés de mon frère monsieur le maire Mamadou si Mbengue pour ñu ànd liggéey pour Tivaouane parce que ñàkk xam li mu waral dafa bari parce que nit ñu bëri nag bu ñu demee ba xam c'est le candidat d'abord idéal parce qu'il a déjà mis les bases pour vraiment sous peu ñu dialogue ci émergent dialogue développement infrastructures ce ne sont pas seulement des mots et des bouts de papier mais c'est des projets déjà ficelés pour Tivaouane donc on a une seule occasion le 23 janvier, pour ne pas perdre cet élan vers l'émergence et vers le développement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. man Fatli euh, que j'avais tenu des propos lors d'un meeting et beaucoup de meetings que Jansi le maire sortant déjà sorti se permet d'acheter la conscience des Tuawanois, de dégrader leur dignité et leur foi. Aujourd'hui, j'en ai la preuve vivante parce que demnafa, pour am preuve parce que lépp lu ma leen wax ci bis dama ciy tout baram duma duma de duma waxantu du ma wax mukk benn mbir les tenants et les aboutissants ma bëgg koo xamal ne ab dëkk kenn du la ko dénk nga toog juróom-ñaari at kenn gisu la defoo dara ci dëkk bi ba nga xamante ni des na ñetti weer nga ñëw di jënd nit ñi ci loolu man mii di wax ak suma et j'appelle à toute la jeunesse et tous les Tivaouanois sunu yaay sunu papa yi ñëpp dem leen ngeen jëli seen xaalis parce que xaalis bi ñun ñoo ko moom li mu waroon a dëkk bi la plus particulièrement man te maa ngi wax ci kanamu ay nit ñoo xamante ni buñ ma déggee dinañ xam ne lii may wax dëgg la koñ bi ma ne mbedd ma fa nekk di taa maa ko sëkk ak sama doole bo fu ne ma for fa xeer fu ne ma puus fa burwet di ko jal pour nit ñi am fu nu jàll dem na ba damay tànk ndox mi pour wagné ko pour nit ñi am fu ko jaal te lolu mairie mako waron liggé liggéey koñ bi mané de bout bu man may form balit ni ta mairie moo ko liggé Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci néna bo balé mbéd sax mairie daf la wara fay man nak juróom-ñaari at yoyu ma doon def lolu japp ni man sama salaire lademon demone jëli tip kep ku ko man demal nga jëli sa xaaliss ta bu